laaj euh, ak dal ak retenue maanaam nga mën a téye sa bopp nekk sa xol. surtout ak absence su Khalifa Sall maire de Dakar instant bi loolu tamit dina leen marqué de wala. Euh, marqué ci seen dund ci politique daal ci gox beeg Dakar lépp. waaw marqué nañu mais xam nga Khalifa dafa nekk nit ku yàgg jëlul lépp féetale ko boppam Khalifa Sall. daf ñu yar yar boo xamante ne même fu nekkul sax lañu war a doxal ñu koy doxal. c' est comme au niveau de la ville xalifa nekk fi mais la war ci administration tey ñu ngi koy doxal la war ci politique ñu ngi koy doxal te bu li koy firndeel mooy gis ngeen ndaje mu rëy bi ñu demoon Kaolack. je pense que ne lu ëpp junni ay juróomi junni ci ay nit ñu ngi fa woon Ndakaar mu toll ci 250 personnes jugee nañ fi dem mais ñëggee na ci ci Kaolack gis ngeen ñu ngi koy loolu wane na ne xalifa nekk fi. mais it jàngal nañu naka la ak nan la mais ci dal ak yar ak dal ak yar ak dégg waaw am na solo <laughs> macha allah kon ba tey Seydina Issa ma laaj na rek comme euh, ni ko waxee Khalifa Sall mooy seen leader. Mm-hmm. te gis nañ ni euh, commune commune euh, dañuy wax ni moom mooy bokk moomeelam. Ah. Mm-hmm. dañuy bañ na ko ba maire bi jiitu bokk moomeelam dañ koy woowee donc ma bëggoon a laaj rek tey en tant que jeune socialiste.

mais bu ñu gisee lu xamante ne war nañ ko mën a gën a yeesal war nañ ko gën a mën a ñoŋal